ñaan njëkk ci tooñ kooku. waaw sëñ bi may fàttali rek ni juróom benn si ñun lañ jàpp. ndeysaan juróom benn si ñun lañ jàpp gannaaw ñi nga tuddoon muy Mañan di Lamine ak ki nga xamante ni mooy Moussa am na ñeneen ñett ñoo xamante ni tamit ñu ngi leen làkk foofu ne nga xamante ne nii mooy ca dakaar hmm. tey kàddu yi nga xamante ni war nga ñu ko war a mën a amal. ci hmm. doxalinu ndaw ak comportement am ndaxte ñett. Hmm. juumte du wees te ay ndaw lañ te reconnaître nañ ñoo tooñ. sëñ bi say kàddu lañ lay doon foofu. Euh, kàddug sant yàlla. di wax ne euh, heure de la jeunesse. Mm-hmm. parfois day dal ndaw. amul kenn ci àddina ci ndaw bu dund. Mm-hmm. ba réussir sa àddina. te mm-hmm. amoo heure de la jeunesse. parce que ndaw. football jeunesse bi day daw ci deretam jàpp ne lum jàkkaarloo rek. mën na ko maanaam euh, dóor mu daanu. loolu waral erreur bi am d' accord nañ ne erreur la moo waral may lancer message bu foor bi di bëgg mu dugg ci kilifa yëpp képp ku ci man dara rek nga def ci say jéego ngir sama jëm ba xale yi jóge fañ jóge fañ nekk ne macha allah ndaxte xale mhm. parfois nag dinay dugg ci loo xam ne ëllëg dina dem ba ci biir mhm. mu xam ne lii erreur la te yaakaar naa nag ne mhm. ñoom juróom benn yëpp lii na leen servir leçon pour beneen yoon mhm. parce que mhm. xale dafa war di ànd ak mag Alioune xale xale di ànd ak mag mag bi di ko dimbale ci yu bëri parce que média dafa garaaw te information dafa xaw a doy waar euh, leen di conseiller te mhm. à partir d'aujourd'hui dina jël ay initiative yo xamne mhm. dañ leen couvrir ci yu bëri yo xamne mo mhm. ngi doon am ci seen télé bi ndax mhm. liggéey lañ sék waye naam. li am ni baña amati. parce que dafa am ci jamono yi bour ay ndaw yu nekkoon dan troubler. période bobu lol période bobu ay mag di leen jappalé ba bés bour wo leen. na leen dama bëgg ngeen rayel ma mag yépp gi leen di jappalé ndax buur mënutoon ci ñom dara. ba yàlla defee mu ndaw yi na leen rey leen magu dëkk bi. xale bu intelligent bu muus si biir xale yi. Mhm. dem jël benn mag bu am quatre-vingt-dix-neuf ans ko. Mhm. ñu rey mag yëpp. ba yàlla dogal buur waat leen na leen rey ngeen mag yëpp ñu ne waaw buur rey nañ mag yëpp. Mhm. mu ne kaa leen nag ngeen tabaxal ma état si kaw jaww ji wala ma rey leen yéen tam yéen ñëpp. xale yëpp jaaxle di pëtëxu ñii di daanu ñii di daw. ba yàlla defee Euh, mu ne leen dem leen ngeen xalaat ci vingt quatre heures ngeen ñëwaat xale ba dawaat sa mag ba mu làqoon mm-hmm. ñoo ne ko maam mu ne ko am mu ne buur nee na ñu tabaxal ñu état si kaw mm-hmm. mu ne boo demee nee leen ko jëlal parole yow ne ko mm-hmm. na def fondement ngeen door a yëkkati bañ demee jàkkaarloog buur rek xale ba jël kàddu wax loolu rek buur dafa jóg taxaw ne am na mag bu deewul kon eh. mag ban naa bàyyi ci réew te Aliou mag bu la mag même bu dee ñaari at Euh, jox ko cër ak respect dafa am solo ci xale bu bëggee gudd fan dëgg te ndaw liñ koy reconnaître ci dundam ak réussite mhm. mooy mu fonk ay mag mhm. di di di di kutuwaay ay mag mhm. di ànd ak ay mag ñu koy dimbali ci yu bëri waaye yaakaar naa ne affaire de e, erreur kese la de la jeunesse si te lii dootul amati parce que xale yoo xam ne xam naa leen ci seen yar. dëgg seen teggin. seen respect gu ñu am ci doomu aadama yi. macha te dama yàpp ne. Mhm. première fois la am. waaw te ne leen servir leçon mhm. te yaakaar naa dootul amaat. kon man ci sama kàddu. Mhm. ak kàddu képp koo xam ne yaa ngi nekk si site bii. di kilifa. tey jël naa kàddu sa si sa boor. ñaanal lañ njëkk. ministre de la république may may ma ñaa maa ngi koy ñaan yàlla. mu jéggal leen te yàlla tax. ay xale yoo xam ne lañ dañoo. nekk di liggéey. Mhm. seen i yaay ak seen papa yaakaar leen. ñuy contribuer ci réew mi dëgg la erreur am na. Mhm. waaye ni ñu leen baal ci benn yoon bi. te mhm. ñu bañ koo defaat jërëjëf. jërëjëf. Euh,